ñenn ci askan bi nga xamante ni ñoo yeewoo fii ci diwaan bu cees ñoom am na problème mu bët ba moo waral li nga xamante ni bi ni kii di Cheikh Ndoye jiite ndaw yi nga xamante ni ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar fii ci Thiès jagleel leen consultation gratuite ànd ceeg l'unitaire yi Falilula. idée bi fi mu ñu jógee leen lu dul que ni avant ñuy doon ay acteurs politiques ñun jéem a doon ay doomu daara jéem def lu social loolu moom moo nekk ci ñun loolu nag moom ñu euh, gis ni am nañu ay jafe ay moyens yu ah. ne la ak suma rak Fallou Diouf muy PDG directeur nan la mën a dimbalee population yi ci moom ci li muy liggéey ci ñun bi ñu am ñu boole ko tey def journée mel nii nekk lu am solo lool ci ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw weer yi ma takk maa ngi waroon a jënd soixante-dix li ma ci am moom laa ko jëndee waroon nga jëndaat yeneen soixante dix mille ginnaaw yàlla nag tey bi ma ñëwee fii ci sama xale yu baax yi ñoom Cheikh Ndoye ak ñooñu indi lii ba tax ñu mën koo am te du man rek nag nga xam nga kër Abdoulaye Yakhine moom dafa nekk kër goo xam ne macha allah problème bu dafee bëri. ba mu dellusee ci li nga xamante ni moo waral lu ni mel Cheikh Ndoye wax na ni taxaw temb ngir jàppale askanu Thiès moom mooy mébétam. ñun élection ñàkk élection lañ boole bu ñu nekkee ci élection dañuy def bu ñu ci élection dañuy def bu dara xewul dañuy def li ñu intéressé mooy def li ñu intéressé mooy na askan wi nekk jàmm saa su nekk ci la ñuy ki nga xamante ni bi ni moo jiitee ndaw yu Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaan bu cees nee na politique bi nga xamante ni bi ni moo am solo jamono jii ñu war koo amal fépp ci réew mi mooy jàppale askan bi ndax sonn nan lool